aca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ni nuyu baax a baax di leen ziar di am mbégte bu baax a baax euh, lu ñu war a ñu ñëw fii nag tey fii si Albert Royal fekk fi Abba no stress ndox Albert Royal euh, Abba Abbé Royer alors ñu fekk fi Abba no stress bi nga xamee ni à chaque fois ndog yi muy organiser chaque année weer koor bu jot mu fay indi ay xéewal ay médicaments ak lu mënti doon li nga xamee ni xale yi nekk fii dinañ ko jëfandikoo alors dañuy bàyyi Abba daal di nuyoo ñu daal di dugg si waxtaan bi salaamaaleykum Abba. Eh, aleykum salaam maa ngi nuyu internautes yi ak téléspectateurs yi seetaan ñëpp di bëgg ci hôpital bi chaque année ñu. tàllal ñu seeni loxo bu ñu ñëwee ñu ubbil ñu ñu dugg jël li nga xam ni peut-être moom lañ ñuy euh, yéene bokk ko ak xale yi ñëw indi ko bokk ak ñoom après ci xol bu rafet ñu ngi sant ñëpp quoi di gërëm ñëpp kontaan bu baax. xam initiative bi la jógee. waaw je pense que équipe bi la ñun ñëpp la parce que ñun ñëpp ay doomi banlieue lañ euh, ay mës nañu nekk ay ndaw ba pare ñëw yàlla may ñu ñu am ay doom ak yooyu dañuy xalaat xale yi bu ñu feebaree tey bu ñu nee Aba dañ naan mooy def ñëpp ñuy reetaan am na ñoo xam ni mënuñu reetaan parce hôpitaux ak yooyu surtout xale yi nga xam ni xale bu mag boo ci gis rek mu ne la sama doom yow la jàngee wax mais am na ay xale yoo xam ni man la ñu jàngee wax mais ñu ngi fii ci biir lalu hôpital yi donc pourquoi pas ak équipe bi chaque fois da ngay def lu baax da ngay génn di def yu kenn dul yëg puis chaque année ci weeru koor comme xam nañu weer la bu ñuy bokk weer la bu bu bëri yërmande ñu ne pourquoi pas ñu ñëw di seet si xale yi donc yàgg naa foog naa ne bii mooy xaw quatrième xaw ma cinquième édition ñuy sant yàlla di ñaan yàlla mu dem ba ay vingt vingt cinquième ak ay cinquante ak cent. Mhm. alors quatrième édition du ay foo sa veut dire que am na maanaam euh, si wàllu financier am noo koy gérer ah nan ba ñoo nekk si ginnaaw. waaw mais ñu bëri rek euh, parce que lii lépp ñëpp la ñi fi ñëw nii ñëpp ku ci nekk jël nga sa dërëm def ci am na ay am na ay kilifa ay nit ñu baax ñoo xam dañuy dégg ne yaa ngi def action yi ñu indi seen xaalis jox la mën naa ci cité benn nit ba ñaar comme benn Papa Doro gay Doro jàpp na ci daaw jàppaat ci ren jàpp na ci bu baax bi ñu ñëw léegi ci yoon bi dafa am benn femme bu ñu dab bëggul ñu wax turam daf ñu jox ay enveloppe pour ordonnance yi ñu fi fekk ñu mën ko jënd c'est extraordinaire tey bi ñu ñëwee ba yegg si am na benn booy boo xam ne sama frère la moo indi joué yëla ci kaw donc du benn nit du ñaari nit ay nit la yu bëree bëri parce que c'est un parce que projet bu ànd ak programme joxe ay dons fii après suba ñu dem euh, fee ci prison ba ginnaaw suba ñu dem donc benn nit mënu ko ñaan nit mënu ko ñëpp la ñu tàllal suñu loxo et ba tey <laughs> gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi ci jàpp bu baax a baax. ok Aba waaw euh, mais parce tamit ñun dañoo. judd ci banlieue bi mu metti lool euh, ñu am papa am yaay te seen loxo doon woon jot seen ginnaaw ñuy feebar wala ñuy gis suñu ay rakk ñuy feebar ñu daan gis situation bi nu muy demee donc tey boo juddoo ba yàlla dimbali la pas nga am ko mais nga am ay nit ñu ko am wala nga am benn image boo xam ne mën nga def lu mel ni genre dafay baax nit nga fàttaliku Euh, noo juddoo fàttaliku fi nga juddoo fàttaliku sa enfance ak yooyu yëpp dafay am solo donc fierté lay nekk pour ñun dañ ciy bëgg buñ koy def parce que dañuy xam ni que ni ñu ngi dimbali xale yi e que sax du action bi mais le fait que nga dugg ci ay salle bu ñu àndee ngeen gis am na xale yoo xam ni bu ñu gisee Aba dañu jug toog dañu fekkoon ñu tëdd jug toog am na xale yoo xam ne bii passé daaw maa leen jox ñu bëri ñu lekk parce que dañ bañ a lekk bu koy def nii defoon nañ ko defaat ko après dañuy dem. yëmbal dem rond point Ouest dem université après dem fi nga xam ni moom mooy ca euh, fële ca prison bi donc noonu la waaw waaw donc noonu lañ ko defee chaque année buñ ko defee parce que lii moom lii rek nga mën a def te yàlla tax parce que da nga koy def te xalaatoo ci dara luñ la ci jox ak li nga ci am ak yëpp da koy def te yàlla tax du nekkul loo di xaar suba loo ci génne ak yooyu mm. donc fierté rek leen ci mën a am ak contentement romb nit woor ba ngoon nga jox ko mu ndogu loolu waxuma sax nga yëg ko nga bañ ko yëg mais xeetu yaaba gi nekk ci loolu loolu kese lañ ci wër ko kon ñun li ñu tooñ yàlla daa bari dañuy profité ci koor gi <laughs> di jéggalu waaw waaw merci beaucoup. parce que ay lié la yu sensible. tey bu ñu nee hôpital ne surtout hôpital yi nga xam ni ay xale yu ndaw fi nekk tey ku ci ne ci ñun am nga doom bu la nee sama bopp lay metti wala sama bëñ day metti wala am na lu ko dar rek yow da nga koy tiim di jooy donc tey nga xalaat parent bi nga xam ni doomam dafa nekk ci hôpital bi ay weer weeri weer muy fanaan ak moom di yeew moom donc loolu boo xalaatu loolu doo nit <laughs> nit am na mais parfois il faut ñuy dem ci hôpitaux yi di xool ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk alors tey bu ñu nee hôpital mooy loolu mooy fu xale nekk xam nga xale yi c'est simple sensible ak yooyu tey ñu ne prison bi prison famille nga dem fekk fa sa sœur fekk fa sa soxna fekk fa sa yaay wala fekk fa koo xam ne sa ami d'enfance la ñi nga fay gis ñëpp ay femme lañ mu ñu mun ñu romb femme te de la femme on parle de la vie donc tey ay place la yoo xam ni boo fa demee rek da nga fay fekk yàlla suñu borom donc da nga fay dem loolu rek mooy loolu rek mooy suñu ay idée loolu mooy projet bi ñu dem foo xam ni peut-être ñooñu dañuy soxla di ñu gis parce que bu ñu nekkee dañuy dem tamit ci prison bi li fa gën wala moo mooy spectacle bi ñu fay def tey mm-hmm. prison bi bu ñu yóbboo seen dons yi sax ñoom ñu xool dons yi ñu ngi laajte ana Toch waa ana ñamaxit ana Baye ana kii ana kële ana kële donc spectacle boobu ñu leen indil ñun moo gën a fort ci ñun que dons yi ñu yóbbu donc loolu la quoi waaw waaw waaw non stress help waaw. Mhm. waaw ñi ñëpp di reetaan ñun suñu objectif mooy dañu bëgg ñëpp di reetaan maam ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko mën ñoo ñuy fekk ci place yi ñuy spectacle yi ñi nga xam ne ñoom mënuñu ko te nekk ci hôpitaux yi dañ leen fay fekk ak li ñuy soxla tey ji eh, ki nga xam ne dafa feebar tëdd ci la hôpital bi mënoo ko fexe ba mu reetaan tant doo ko faj ba mu jug donc moo tax ñuy jéem indi lépp loo xam ne xalaat nañ ñi peut-être ak yàlla bu ci defee loxoom genre dinañ jug ñu fexe ba ñëpp reetaan parce que ku wér reetaan ku feebar boo wéree reetaan donc kay xam yow tamit da ngaa wér boo ñu fekkee ci place yi nga xam ne dañ fay woote boo ñëwee tamit reetaan dañu bëgg ñun suñu objectif mooy ñëpp reetaan no stress for everybody waaw waaw waaw am na ñu yor nag ñoo xam ne ñoom mënuñoo ñëw mais dañuy yóbbante ñu ñun ñu leen indi seen kom koom en tout cas daal ñu ngi woo ñëpp daal lii daal ay action la yu nga xam ni tey ku ci nekk ci ñun ci bi nga nekkee di wér péng nga war a mën a préparer sa bopp ci ëllëg boo feebaree bi nga nekkee en vie ci nga war a mën a préparer sa bopp pour ëllëg boo faatoo ci ngay jaamoo yàlla loo xam ni suba boo demee a xiyaam moom nga fay fekk dañuy ñaan yàlla yàlla na yéex parce que man bëgg maa teel dee donc loolu la donc li ngay def nii yëpp c'est pour ta famille aussi tamit ñun am nañ ay doom xamuñu suba lan mooy xew yàlla rek moo xam yàlla moo sakk ay jaamam moo xam lan lay def ci ñoom ak lan la nam ci ñoom ñaan yàlla mu sàmm njaboot yëpp sàmm ñëpp objectif beek projet yëpp mooy ñëpp nekk ci jàmm yàlla nekk yàlla ñëpp nekk ci jàmm yéen ñi am te koy mën de temps en temps da ñëw ci opito yi ak ci prison yi surtout armères yi di dem di xool lan moo fa nekk foofu moom foog naa ni waaye ñu naan am na xaalis te aw ma fu ma ko def foofu amul foofu waaw moom boo demee di nga am leen loo fa def quoi. Mhm. jàmm ak salaam ci réew mi yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am salaam ki nga xam ni moo gën ci moom mu yor réew mi gën ci ñun yàlla na ko yàlla jox réew mi réew mi moom mm, benn nigérien mënu ko jiite benn keneen mënu ko jiite ab sénégal rek moo ko mën a jiite donc nañu ñaan yàlla yàlla sàmm ñu ba dimanche bu ñu xëyee lundi activités yi continuer waat ba pare ñu amaat réew mi nga xam ne moom la ñu amoon réewum ambiance réew mu mën a tax ñu mën a def li parce que am na nu mu doon demee li yëpp duñu ko mën yàlla na sàmm réew mi sàmmal ñu waa réew mi sàmmal ñu suñu njiiti pare njiit bi nga xam ne mooy jiite bu ñëwee moom tamit mu xam dañ ko wóoloon ba dénk ko mu xool li gën ci réew mi mu daal di koy def ci ñoom jaa jëf ci réew mi <laughs>